ñëw. am naa nouvelle bu neex. sa kayit génn. Ismaïla kayit yi génn alhamdulilah rab Ismaïla wax ma te yàlla tax am naa ay kayit man wuy sama tànk yi bañ wuy sama day ñu ne Ahmed Diop Fall mbëkk mu Sénégal ah oui <laughs> Ismaïla sama xol bi sedd na yàlla na la yàlla defal jàmm yàlla. Ismaïla yàlla na nga am étage yàlla na nga am ay oto yàlla na nga am ay nag yàlla na nga ay xar. amiin amiin amiin amiin amiin. Ah! loolu damay dugg ci ndox mi ci ndox mi allahu akbar allahu akbar alors Diop Fall nan ngay joxe ni rendez ba pare mu jiitu la sur lieu de rendez-vous nga ne yaa ngi man côté waaw defar lu gaaw ma yow rek laay xaaraama aw ma benn temps nii la la def ko ah yow yaa ngi wër di ut liggéey ñu lay jàppale me nga nekk fii di Tamba Mbaal si dëkk ba pare naa ma ay maa ngi côté. doo doo bàyyi bunt bi boo laalee bunt bi ma waay yow. c'est quoi la ngay def ci biir dugguma ci biir fii laay taxaw. lan moo tax ma suturaal la nga may fedal. tu dis ah, kay yow fekk naa la nga kër a uufanteeg sa jabar ma dem waxuma ko Fatou Kiné yow nga ñëw taxaw ak Fatou Kiné fenal ma ne ma man maa ne la da ngaa wasin ay seex fan laa la ko waxee. mais gis nga Ndiaye ah. avec votre famille je commence à en avoir marre. ñoo la gën a maar mënatuma koo ñoo la gën a maar. parce que mënu ma ñëw déjà ñii ma bëgg leen a jàppale pour yóbbu leen muy yow nga bëgg ma andil ay problème y' a cet invalide là di ma kott ci mbedd mi di ma menacé de mort y' a Fatou Kiné làmminam bi di mbarganu mbaam fu ne wax gis nga xoolal. man maa doyal quoi. ñun ñoo la gën a doyal laa wax. beneen bi ci topp mooy sama xaalis ngay teg sama loxo. sama xaalis. xaalisu gaal gi. juróomi millions yi teg wàññi ko benn ñaar ñett ba muy juróom comme ko joxe woon nga teg ko sa wàll. yow de toute façon man dama lay jox sa xaalis parce que déjà seen voyage bi dafa takk suuf parce que yaa kunkande bi jël taxaw ni juru tam xarit day xar géej gi. kunkande te déjà bato bi mi ngi woon Cap léegi mu dugg Sénégal te buy dugg day tombé ak tam xarit bi kon yéen déjà mënu leen a voyage. parce que amul fu gaal jaar ñu ngi ci ay réunion di waxtaan ak moom ba xam dina bàyyi xar géej gi mais moom jël na décision neen da koy xar léegi lenn am na mooy seen sa xaalis yow après demain tu viens je te le donne. Ndiaye li sama buntu eh, la. dama ne bu nekkee sa buntu kër sa jiir naa ko doo ko laal. Koungheul sumb jun la wax ñun jaaruñu foofu man maa dematul d'abord jox ma sama xaalis. Ndiaye après demain nga ñëw ma jëli xaalis bi mi ngi banque. xaaruma après demain laa wax xaalis bu nekk ci banque lu ñuy xaar après demain suba du vendredi doo dem suba. bon d'accord Ndiaye demain. waaw sa kër convoqué ma tout le monde. dinaa ñëw ñëpp toog ma régler li may régler ak yéen fàttali man ak moom c'est fini yow ma jël sa xaalis ma jox la ko wax ji jeex. loolu mooy mën a am jàmm ok dégage de ma porte. jugee wu ma fii prends ton temps defal ji mais vraiment géej gi eh eh njaga eh muyu ma njaga wax la na ndax yow lii nga jàpp di jalu boobu ba tey di mel ni kuy naan bineegar am na lu ko jar njaga bàyyi lii oh njaga njaga boo ma mandee du nu mën a waxtaan ne te nga dog li ngay naan ñu waxtaan ba pare waay awla ba nga yëg ko lii mënuma ko bàyyi dalaaw nga xam ko. kii mooma la gën a waaye bu fekk ñaata at daa def Europe ñaata at maa ngi Europe di liggéey ñaata at yow wax wax yow xaw yow sama xarit nga. lépp la la fekk. ñooy jàngandoo ñoo sàcc ñoo mango. lépp la la fekk. lu ma liggéey kuul ko paa bi. ñu ko tabaxal ma kër. bu ba kenkeer booy paa bi am lu mu takki jongama ah wuti oto sa papa waaw sa papa li mu def tegu ko ci yoon de voilà sa papa xanaa ba muy xale jongama yi dañ ko tewoon mu bëgg a avancé wu lan la ci sa xaalis wax nga lépp waaw paa bi li mu def tegu ko yoon moo tax man ma neex lay def ah nag boo ko defee def erreur xam nga looy def jëlal lii sànni ko teg ko nee na amul njëriñ ñu ànd atelier ba di laver laver yomb na eh déglu ma man dama sa morom man Europe xam na loolu liggéey ay nit laa yoroon di leen liggéey loo ñu may jox wax xay ma leen di jox léegi nag kër gi laay jaay. mu ni ña nga te nga li ngay naan yaa ngi mandi te yëgoo ko de boo jugee taxaw ngay xam ne mandi nga. waaw kër gi laay jaay. woo sa waa gars yi ñu feetu wala ni jaay naa kër gi. après. soo jeex fu ay nekk fanaan. tey ñaga yaa ngi ci erreur nag waaye sa alal la su la neexee jaayal kër gi lakk xaalis bi tëdd ci mbedd mi loolu yow la lu ma ci man daal mooy jóge jëlee la ci li nga ne boo bëggul ñaw ma bala fa nag te dem sama yoon wax nga ko nag wala xam naa def léegi da ngay dem ba ma Souleymane ne ndax luy si laa ne ñanga du ma la bàyyi kon da ngay sàmm xam nga lan la ñanga baal nii ngay naan amul. waaye jox ma ah. ah. maa ngi jégalu de maa ngi jégalu. nan nga may joxe yow lieu de rendez-vous ah ba yow ma la fiy jiitu quoi. maa ngi woon fii ci ginnaaw waaye daa lu ma doon lijjant rek. loolu yëpp lijjanti moo mhm. xam nga lu tax ma wala non. waa waaw mais waxal rek. nu mu lay expliqué si téléphone bi. Mhm. maanaam affaire bi liggéey bi tey la ñu tàmbalee. Mhm. maanaam sa division tey lañ koy def. voilà ji nga sakos bi. waa voilà. gis nga lu si nekk yëpp. waaw enveloppe bii nii. xaalis la. lu si nekk nii 1000 grammes la. léegi 1000 bi nii moom ngay livré yi ci comprends. Mhm. donc lii nii ngay jël. bu dë bu dugg sa saag bi nga lonku yaa dara la joxe beeg lépp ngi si bu ko defee nga dem. waaw mhm. ah, taxawal taxawal euh, gis nga Matar maa ngi doog a comprendre lépp gis nga sa yii nga may def nii ak ay 1000 ma nga yóbbu yooyu yëpp dama cee yow gis nga lii nga gaare oto bi bu mel nii laa bëgg gaare dama bëgg teraanga comme yow du xarum tabaski oto yoruma ko yoruma kër yoruma dara waaye am naa yàlla ta sama ngor laa yor xam naa ne waxuma la kaso sama bakkan bii nga soxla yow ndekete ay yamba ak ay heure yu. loolu eh, eh, la ngay nekk di. waaye ca kaw laay wax nga la wuy ma yow doo teg sa gémmiñ yow bu ma lay woo di lay expliquer gën a xam lu tax ma lay doyee lii nii xam nga bu baax ni affaire business laa lay doyee boobu la ko doyee di la ko wax boobu ba léegi xam nga bu baax si lu ma nekk su ma fi déggaate nga wax tuuru yamba wala drogue. Hmm. di nga affaire ak man hmm. yow kon yëgoo xew bàyyil sama loxo sa loxo. bàyyil sama loxo. ma ne bàyyiwuma sa loxo nga xool xool ma fii ji nga su ma doxee si temps bi wala may dox ba dégg fenn ñu ne Diop wala Matar lii ah. Hmm. sa misère. bis hmm. ni ki tey lay tàmbali. waxoo dëgg caabi bi xool teg samay loxo. oh. laay waxal de. <laughs> tu te gis nga sa femme yëpp bu ñu dajaloo woon caabi appartement bi ça m'appartient yow kon ndekete comprends rien gis nga kër googu. ma mënoo sa fukki morom boo leen dajale woon ak sa waa famille mënoo leen fa ma faa jële muy un deuxième bi mooy li jënti naa samay këyit man damaa légal fi mu ne nii faalew ma la man yàlla laa yaakaar lu may dunde jom lay doon te yow dinaa la sa yow ok d'accord ji nga dénoncé boobu ngay wax ma dox si temps ba dégg yow mene hmm. Diop Fall wax na Matar si benn affaire boo xam juróona liy wax ay wàllum drogue wala leneen hmm. sa bakkan laay jël yow sa oto yi Oh, yow de yow yow yow kaso nga jëm yow. waaw nga dem wala mënoo dem. di yow dénoncé naa la bu yàgg loo mën rek defal loo ta ni naa la topp sa numéro oto laay foto da ngay jaay band rek ak peegar. sama oto boo waxu fi yow dama nga toog ak sa kos bu ëpp xaw ma dafa xat ak sa mag yu bañ. de yow dénoncé naa la yow yow yow yow yow ci yow di nga kaso ngay dormir yow yow naa la booy ñu la tëj yow jiital la voleur. defoon naa ne ay ay ay kii ngay jaay ay cër waaye ndekete ay yàmba ak ndorog ngay jaay valeur nga xam ay 1000 grammes ak ay 1000 bal li ma bëgg nga xam ko mooy je n'en peux plus ki ne wax naa la ko duma ci delluwaat parce que affaire bi mu ngi commencé ëpp ay loxo te man xamuma lii àndul ak sama liggéey l'autre jour yaa Ousmane kot ma di ma menacer de mort bu subaa njaay paaka lay doxantoo gannaaw suba sa sa sa euh, je ne sais sa xaritu yaay boobu fu mu daje ak man da ngay takk fàtki ne tey da ngay takk fàtki ne suba yow aussi ñu waxtaan jàppaguñu sax date bu leer fàtki ne Sénégal ñëpp xam na ni dama la war a takk te man ak yow d'accord guñu xam nga lan la après mille réflexions man dama bëgg sama bopp te sama liggéey àndul ak yenn yi et je sais que je suis en danger sama vie nekkatul en sécurité parce que ay appel anonyme sax dama koy jot ki ne yow xaw ma ñaata góor ñoo lay topp yow vraiment seex yi ñuy wax naan deux la xam naa ni ay douze seex war nga koo dajale man xaw ma nan nga def ba garder cette forme ki ne je veux qu'on annule le mariage man ak yow sëy dootul am suñu diggante point barre. gis nga lii du formation bàngo ba heure bu la neexee nga libéré ma lii relation amoureuse la te du man nangu nga jël sama xol bi def ko kaafu ginaar heure bu la neexee nga ciy kës. gis nga nag xeet ba mbëkkoon bateau Titanic maa ko gën a dëgër maa ngi nii ne doj danga may takk par force yow lan la gis nga dëkk bi maa la mag ngay dégg mais yaa ma gën a vierge maa la gën a bëgg marie marié maa la gën a bëgg lune de lune de miel doo ko dégg du ma ko def waaw kay ba pare sax yow yow man yaa ma miné sa bopp man damaa toog sama toog nga jël sama xol bi plâtre ko nga dem jëli si oto ndaraan fële ñëw moo wal ko ba mu mokk rumbux rumbux dugal ci sa personne tëj ko bëgg a dem bëgg ma fee bàyyi maa la bëgg ba pare am nga sérieux problème du ma ko def yaay man maa ngi mel ni doom bu nekk ci biir biiru yaayam yaay sama cordon ombilical yaa may dundal force danga may takk. ki ne cordon ombilical bi tey leen koy dakk maa la bëggoon bëggatuma la. Oh. ki ne man ak yow du ñu marié man ak yow du ñu ànd lune de bu dee man maay tax ngay dëj jàppal ni yow bis ni ko tey kóoni nga parce que man ak yow le mariage n'aura pas lieu. force force damaa war a am doom te ci yow laa koy amee force boobu léegi ma toog di garder sama bopp di garder sama bopp da ma dëj ci sama bopp bàyyi ma caabi jox ma ko fii bàyyi dina leer léegi ma lan laay wax waa koñ bi waa daral ba lan laa leen di wax samay fournisseur lan laa leen wax ak samay tailleur léegi man ñi ma yëgal xew yi ba pare lan laa leen wax ba pare yàq sama connexion man a yi ma luyee ak chaise bi tamit waa foofu lan laa leen di wax. mbootaay jeeg ji nga xam ne ñoo war a ñëw langal ma lan laa leen di wax danga may tax force